yaa xam naa sant yàlla na mu ko waxee woon defe defe ne ko noonu keroog ba muy ñëw ci yow fekk la taw féex ba mu ñëwee ci yow nga ñaanal ko mitti na lool mu fekk la taw féex nga def ci moom la nga def ci moom xool ko sa bëti yërmande mu dellu Gàmbi ñu wate mu gañe ñu jugal ci loxo bëgg mu xajam nga seppi loxo yi fexe jàmm am Gàmbi yëkkati lépp ba ñëpp gis ko nga ne ko jàmm rek président Macky Sall sa doom ju baax ji bëgg la lool fexe moom itam ba bal takkul dara amul gambi lu muy jàmm mu ànd ak président Baro delloo ko mu yëkkati loxoom waate Sénégal loolu ndam la ci diggante Sénégal ak Gambie fekk na ko fi wante day lépp loo xam ne bii ñëwoon na ci yow rek Mbakke ñaan la ko ca ba mu am na tey nag day sant si mu ñëw ànd ak soxnaam ànd ak ay ministère am ànd ak protocole bi gam bi kenn desul bawul kenn mu indi leen ne fa ma ñaane ji woon am ndam naa fa dellu gis nga Pape Demba mu ngi nii ak sa taalibe yi ne gam bi nekkal la fa ak Mor Diop ak Alwa Gaja Alwa ñëpp ak jigéen ñi ñu àndaloon tey taalibe sëñ Bamba yii nekkal la ca gam bi firgi nañu seen xel dal na moo tax baral dellu moo tax Mbàkke dellusi na ànd ak bokk yëpp ak xar yëpp ba méttee muy xuus di ñëw ci yow rek la ñëw xuus ñëw ci yow gam bi dana mel nu musa mel yaay julli si Touba yaay premier président seul président de la gam bi njëkk a julli ci jumaay Touba ji gën dugg seen Bamba kon ñu déglu président alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi ziar sëriñ bi di nuyu sëriñ bi bu baax a baax a baax baax di nuyu fami sëriñ bi yëpp di nuyu taalibe yi di nuyu ku nekk ci boppi réew mi muy suma mag muy suma conseil muy suma siixandoor président Macky Sall démb bu ñoo waxtaan ma ne ko ñun suñu nekkee siix ministres yi dañu war a nekk siix maire yi nekk siix njaboot bi yëpp nekk siix ñaari dëkk yi benn lañ kenn mënu koo xaaj yàlla moo ko def lu yàlla def nag danga see ba mu dëgër man nag bu may ut nguur Gàmbi dafa amoon taalibe murit taalibe Serigne Touba mu nga xam ni dafay liggéey si man mu ngi fi toog Karim Mbodj ku am fayda la ku mun liggéeyam la mu maa liggéeyal si Gàmbi mu ne ma ñun nag suñu yaakaar yépp Serigne Touba la noo mun di def bugg naa ma àndaa yow nga dem ci sëriñ bi ñu uti foofu ñaan waxtu bi xat lool waaye moom taayiwut mu dem war suma mbokk yi war suma ay xarit nañ ko jàppale pour ma lu ñëw ci sëriñ bi ñëw ut ci ñaan bu loolu xewee aaju moo ma ne ko dimanche ñu dem buñ jógee si dimaas boobu ñu ànd a ñëw jaar si sun mbokk mu ngi nii toog njaay ñu ñëw ci jaxate dal si jaxate baabi jaxate mu tëral ñu lool defal ñu protocole bi yépp àgga ci sëriñ bi gaa ñu yoon ñu àgga ci sëriñ bi mu laaj lan mooy suñ soxla ñu wax ko suñ soxla mu ñaan si soxla bi ñaan boobu nag moo nangu si bés ba bum ñaanee wax nañ ko ne su ñaan bi nangoo ñu gañe élection su ma ñëwee Sénégal dinaa la seet si tey nag seet si bi delloo ko njukkal loolu moo tax bi ñu seeti sëriñ bi tey sëriñ bi ak nu mu bari aajo yépp depuis bu campagne bi dooree semaine bu nekk protocole am bi njaay dina ma kool wax ne sëriñ bi mu ngi laajte naka la affaire bi demee dina kool ñu wax ko fu ñu toll ñu yokk ñaan saa yu nekk nag njaay mii dinañ ko yónni mu ñëw Gàmbi ñu def si ñaan yu bëree bëree bëree bëree bëri ñu gañu élection ñu téléphoné ma sargal ma si élection bi mu nekk kontaante bu loo kontaante bu bëree bëri bëri si ñoom tarika bu mel ni tarika Serigne Touba yàlla ebal la ba nga ñëw foofu ñaan mu nangu war ngaa ñëw delloo njukkal ñaan bi nangu na waaye liggéey réew nekkut liggéey caaxaan loolu tax ñaan ñu delluwaat beesalaat dénku bi ci sëriñ bi di ko wax ne première partie bi boobu jeex na mooy ñu gagné élection deuxième partie bi mooy liggéey réew mi ñëw nañ pour dénku ci wàllu boobu mu defal ñu ñaan yàlla yombalal ñu liggéey bi mu defal ñu ñaan pour ñu mën a liggéey Gàmbi mu defal ñu ñaan Gàmbi ak Sénégal ñu nekk benn ñu ban a xaajaloo jàmmi Sénégal mooy jàmmi Gambia jàmmi Gambia mooy jàmmi Sénégal soo seetee bu problème bu amee Gàmbi kenn dawut fenn ñëpp Sénégal lañ daw si juróom fukki junni nit ñoo daw si ñëw senegal fii demuñ fenn demuñ Mali demuñ Bissau demuñ fenn Sénégal rek la ñëw kon nga gis ne dëkk yi benn lañ sëriñ bi nag ñu ngi koo gërëm bu baax a baax si jàppale bi munoon nañoo ñëw mu ñaan rek fàtte ñu waaye fàttewut mu ngi continuer di ñaan di continuer di laaj kon dafa amoon ite trop te bu ma ñëwee itam waxoon nañ ma ne kenn mosuta ut nguur Gàmbi ñëw ut si ñaan fii tuubaa yow yaay première kon dinañ si taxaw def si lu nekk nag lu nekk lañ si def kon loolu nag kan nañu kontaante bu rëy a rëy ba tey ñu ngi dénku sëriñ bi mu yokk ñu ñaan ñu continuer liggéey bi incha allah ñun tam duñ fàtte. ñu ne nekk président taxul mu sansé sa jikko soo nekkee président rek dafay feeñal sa jikko loolu ñun tam ñu ngi ko wax loolu ne duñ sansé dañ wàcce woon boppa suñ boppa ñëw si moom si loolu la ñoo continuer incha allah kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant taalibe yi di sant ñëpp di fi bu ñu xamee ne ñëw naa Touba taalibe yëpp ñoo takk seen liggéey ba mu dëgër jàppale kenn desut gannaaw nag loolu yëpp ndig barke sëriñ bi kon bugga nañ loolu mu nekk luy continuer mu nekk luy sax ñu ngi ñaanal ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant sëriñ bu baax a jërëjëf jërëjëf dégg ngeen président Baro wax ju rafet ji nga xam ni wax na ko micro yi jox ko Cheikh Mamadou Bachir kii nag mooy yor kàddu sëriñ bi rakkam ju baax jii nag toog tey toogal fi sëñ Muntaxa magam ji ak bokk yi ak sëñ Bachiru magam ja bismillahi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalul sëriñ Cheikh Sidi Muxtar mi fi jëmmi sëriñ Tuubaa ci kaw suuf yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ba naal yi am ci lislaam am ko ci yoonu murid suñu boroom mottali ko may ko kàttan fu wér ba lépp mu mottali ko ci jàmm mu lay nuyu yow président de la république Gambie di Adama Barrow ak mboolem délégation bi nga àndal bépp di la dala jàmm fii ci dëkk bu tedd bi di Touba ci jataay bi rek Serigne Sidi Mbackeem Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mi nga xam ne mi ngi ci wetu Serigne bi teewaaleel fi mboolem jabootu Serigne Touba gi. te buñ ko tuddee rek mu mën a yóbbaale ñëpp moo nekk ci wetu sëriñ bi kon sëriñ bi ngi lay nuyu bu baax di la dalal jàmm fii nga ñëw di Touba ndax Touba day dëkk boo xam ne sëriñ Touba moo ko sanc muy foo xam ne fekku fi dara dafay ñëw gor ko dàq fi rabi àll yi fi newoon sanj fi Touba suñu borom may ko ko muy ak jagleel ci moom ndax kenn mësta dégg ci taarix dëkk boo xam ne amul lu ëpp téeméeri at ba noppi dëkk ba toll nii mu toll tey mu bokk ci jagle yu ko suñu borom jagal mu ñaanoon suñu borom ne ko waccaal fu yaa rabbi ahaba maskani fii ardina lakk walil ma xissani mu di dëkk boo xam ne ginnaaw bu capital bi jàllee moo ëpp ci Sénégal ñi fi yeewoo itam bari lool ñëpp itam tënku ndigalu sëriñ bi loolu kenn mësu koo dégg fenn ci àdduna mu bokk ci jagle sëriñ Touba sëriñ Touba itam ñaanoon suñu borom ne ko nag mu ko defal muy dëkk boo xam ne mboolem ay xéewal day bàyyi ko fu ne di ñëw fii ci dëkk bii suñu borom itam nongul ko ñaan googee def ko dëkk boo xam ne danga koy aar ci lépp loo xam ne bëgg ko suñ borom itam defar ko ko ci dëkk bi mu def ko dëkk boo xam ne itam lépp lu waaye yaakaar te yaakaar ja nga ànd ca pëstéef bu dëggu boo dikkee boo fasee sëriñ bi daal lu ko defal kon sa dikk kii tey bokk na ci la leeral loolu sëriñ Touba dafa ñaaroon suñ borom ne ko nag moo ko defal muy dëkk boo xam ne waj bu laxel xayra minal jihaati as sitti ak fiha anil afati ndax moo ko defal muy dëkk boo xam ne fu ne la ay xéewal di bàyyi ko di ñëw fii ñaanoon suñu borom it ne ko nag moo ko defal muy dëkk boo xam ne ni ma ko waxee léegi yaakaar du fatas ci loolu nag moo tax euh, Serigne Touba sanc ko ba dëkk bi ak si fii tey fii nga ñëw itam seet si Serigne Touba Cheikh Sidi Muxtaar jataay bii mu toogee jataay la boo xam ne ku fi ñëw yaakaar du tase ci moom ndax loolu sëriñ Tuubaa ko faggu sëriñ Abdul Ahad Mbàkke dafa am lu ci leer loon dafa waxoon ne sëriñ Tuubaa ba mu xamee ne amul kenn amul ñaar te li mu yor te te li mu yor di lenn te mënu koo jox kii bàyyi kii dafa jël mboolem li mu am def ko ci waxande waxande woowee nag mooy alfulkul masuun dajale njaboot gépp ba ñëw mu xam mu leen lii seen àll li bàyyi ci nekk mu ne waxane war a kenn mënu koo yotaan jël caabi ji teg ci loxal ki mag kenn mënta dem ci biir gaal ga te jaaroo ci ki mag waaye ñoom itam moom itam sañut kenn soxla ci gaal ga dara joxalu ko ndax seen àll li bàyyi ci ne loolu mooy mbirum Sëriñ Tuubaa di yoonu murit mu wax ne li jëkk sëriñ Touba xutbaane yi gi daa wër bi mu agsee ci sëriñ bi nag sëriñ bi li mu doon liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa bokk na ci li mu ko fayee ba addunay tukki xutbaane yi dootu génnati dootu génnati ak njabootam mu ne jataay boobu yi nag bala caa kenn toog daañu la peese ak bindeef yi ba nga wat leen ñu door la faa teg bu ñu la tegee ci balaas ak bindeef yi tawatoo leen nag ñu leen la ba nga am doole wat leen ñu door la faa teg mu ne bu boobaa nag mboolem asmaullahi husna yëpp ba nga ci téye rek ay dox nee na lépp loo xam ne aw yiw bu bàyyi ko suñ borom balaa wàcc day jëkke ci yow nga yànnu ci ba diis genn mu door wàcc ci bindeef yi waaye naka noonu itam lépp lu di nattu balaa wàcc ci bindeef yi day agsi nga jël ci ba doyal sëkk mu door wàcc ci bindeef yi nga dox seen digg lépp lii ma wax nag waxi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké la kon boobu jataay képp ko fa tooge ku ne nit ñi war nañoo xam jataay boobu lépp loo xam ne bëgg nga ko ci moom boo ci imposteur suñu borom daal la ko defal di la gërëm yow nag bu baax ndax lii nga def ba nga fiy jëkk ñëw yow rek ki fi jëwoon àndoog ñu bari xëy na ñaari nit wala ñett la kenn yëgu ko woon tey jii nag bi mu fi ñëw àdduna sépp yëg nañ ko kon yoon wu njëkk wa dangay ñëwoon di sàkku si waaye bi nga dellu siwaatee tey dangay ñëw ngir sant si loolu mooy li ko wutale te loolu suñu borom wax na ko fu bari ci alxuraan wa minhum man ahada la in atana min fadlihi lana saddaxanna wala nakunana min as-saalihin falamma aatahum min fadlihi baxiloo bihi wa tawalaw wa hum mu'ridun fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima ila yawmi yalqawnahu bima axlafu llah kon loolu saa soo daalanteeg nitu yàlla ne ko ñaanal ma am nangam la ëpp solo mooy saa soo demee ba suñ bam teg loola ci sa loxo nga ñëw sant siwaat ndax suñ borom wax na ko fu bari ci alxuraan doomu aadama saa su tiitee jaaxle day dem fam yaakaar waaye li ci ëpp bu xéewal gi dikkee dañ koy daal di fàtte kon fa isaa masal insaana dur daana li jan bii wa isaa masal insaana dur daana li janbihi aw qaacidan aw qaa'iman falammaa kashafnaa anhu durrahu marra ka'an lam yad'unaa ilaa durrin mashuu wa izaa massa al-insaanu durrun da'aanaa summa izaa hawwalnaahu nicmatan minnaa qaala innamaa uutiituhu alaa ilmin li ëpp ci doomu aadama yi bu ñu sàkkoo xéewal ba suñu borom defal leen ko dañuy daal di jàpp ne xéewal googee ñoo ko may seen bopp kon nag bu boobaa suñu borom lam ca digle wa in tashkuru yardahu lakum waaye nag bu ngeen ma santee ma dool leen nee na nag néew la lool ñoo xam ne danaa leen defal lu baax ñu sant ko wax qalilu min ibadi ash-shakur dellu waxaat ne alaysa allahu bi alamu bi shakirin suñ boroom xàmmee na ñi sant kon nag lii nga def ak cant la kon sëriñ baa ngi lay sant di la gërëm bu baax di la ñaan litam bu baax a baax suñ boroom kàttan na la ba yaakaar ji nit ñi am ci yow suñ boroom mottili ko ndax nguurukat suñ borom dafa am lum ci dale ndax boo demee ci boroom xam-xam yi dañuy wax ne nguur suñ boroom da ko dindee ci nguuru yàlla gi da ko dindee ci jox ko doomu adama moo tax nguur suñ borom a koy joxe carte yi yëpp ay sabab rekk la ci allahumma malikal ki tuuti mulka man tasha wa tanziul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadika alxayru innaka ala kulli shay'in qadir bu ñëpp maase woon ci ne dañ la fiy jële te suñ borom dugalu ko it kenn mënu la faa jële bu ko yàlla jeexal kenn mënu ci dara bu suñ borom tuddee ne yàlla dana la jox nguur gi itam bu doomu aadama yëpp maase woon ci bëgg la ko xaj mënuñ ci dara kon na nga xam ne fi nga teg yàlla suñ borom moo la fa teg nga góor góorlu nag ci fexe ba dëggal yaakaar yi ñi la fi teg ndax sëriñ Abdul Ahad Mbàkke dafa waxoon ne nguur moom yaar rekk la dafa mel ne weer nee na lu ci màgg lëndam daana wax itam ne booy ñëw dañ lay tàccu booy dem ñu yuuxu la sëriñ Tuubaa waxoon na ko Sàmba Lawbe ba mu ñëwee dina ko dama bëgg nga dénk ma da ko waxoon ne ko nanga xam ne lii la suñ boroom jox muy nguur mu agsi say loxo dafa jóge woon ci yeneen loxo ñëw ci sa loxo te na nga xam ne itam ni ko yàlla tege ci sa loxo itam yàgg yàgg dana ko dindiwaat ci sa loxo jox ko ñeneen loxo kon nag diir bi mu la ko jox na nga góor góorlu ci fexe ba saas buy jeexe ci yow rek le fàttaliku bépp rafet ndax loolu rek ci am solo kon sëriñ bi neen mi ngi lay dénk loolu fexe ba ñi nga xam ne yaakaaru nañ la ba jox la réew ma nga góorgóorlu ci seen seen yitte te xam ne boo ko defee itam suñ borom dalay gën a dimbale ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax ne képp koo xam ne jiite nga bu doon fukki nit la itam ëllëgët si biir suñ borom daan la teewal ci kanamu jaam yëpp ñu ñooñ say loxo li fi dangaa doxalu doon doxaloon ak maandu ci ñoom boo doxalee ak maandu ci ñoom nag boobaa ndimbal lay doon loo xam ne day yaatu lool kon sëñ bi lay sant bu baax di la gërëm di la dénk tam ci diggante Sénégal ak Gambie ndax Serigne Touba saa su ma sàndi ñaan moom xamutoon frontière yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jami al wara fu mas ñaan la ñëpp lay ñaanal rawat na diggante Sénégal ak nga xam ne wenn xeet lañ histoire rek moo leen tàggale kon Serigne bi ne itam mu ngi lay dénk diggante ñaari réew yi ndax lu dal fii rek dal na fa ci des mm-hmm. te sëriñ Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne ay nit bu ñu bokkee lu ñu mën de seddoo dañ koy rafetal te diggante Sénégal ak Gambie noonu la demee. dara da ko daa misaal ci aw ñaari junni bu ñu ko séddale woon fukki nit kenn ku ci ne bu fekkee dangaa bëgg ne nañ ma daggal sama wàll kenn kon kenn du ko jariñoo kon dañuy fexe ba rafetal ko rafetal ko nag mooy fexe ba jënd ci loxo ñoom ñëpp koy bokk kon nag sëriñ bi ne mi ngi lay dénk diggante ñaari réew yi. lépp lu ngeen ci man ci rafetal fexe ba diggante ñaari réew yëpp nekk benn ci biir loolu itam euh, sëriñ bi mi ngi sant bu baax président Macky sàll ci taxawaay bi nga xam ne def na ko ci bi diggante ñaari réew mi réew ma tàngee def na ci taxawaay bu rafet te nit bu jëfee lu baax ñëpp war nañ koo seere sant ko def na ci taxawaay boo xam ne taxawaay musu koo mënu ko gën a rafet mënu ko gën a yaatu nee na moom itam ñu ngi koy ci ñaar suñ borom dimbale ko ba ndam loolu mu ci am itam mu amaat ko ci yeneen ak yeneen ndax loolu day histoire bu yàgg boo xam ne ca bu ngeen fàttali ko 1981 ba lu mel noonu amee itam Sénégal defoon na taxawaay boobu kon diggante ñaar réew yi nañ xam ne jàmm rekk moo fi xew moo fi mën a am kon sëriñ bee ngi ñaan suñ borom def jàmm jàmm ca Gàmbi def gàmm jàmm ci biir Sénégal seen ñaari diggante yéen ñaari njiit yi nga xam ne yéen a ko jiite itam suñu borom déggale leen ndax bu ngeen déggoo rek njaboot gépp na ci jàmm sëriñ bi nee na mi ngi lay sant mi ngi sant waa Gambie gépp ndax diggante Sénégal Gambie day diggante bu yàgg boo xam ne lépp dafa rafet te ak njabootam gu bari nekk ci dëkk ba te yaatal nañ leen bu baax at waxtu wu nekk ña di bokk ci ak njabootam di ay bi ñu ngi fi ñëw te mosuñ leen xatal mosu leen bu ndoxatal kon loolu chambu Gambie bépp la ko sëriñ boole di leen ñaan suñu borom defal leen fa jàmm defal leen xéewal ci biir réew mi bala mooy jeexal nag mi ngi sant nag njabootu sëriñ Tuubaa gi di ko teg ci loxol sëriñ Sidi Mbàkke mi nga xam ne moo fi teewal njaboot gépp ak mboolem ñi fi teew ak ñi fi teewut sëriñ bi nee na mi ngi leen sant di leen gërëm di leen xamal ne mboolem taalibe sëriñ Tuubaa ak mboolem mbokk yi seenu cant di amu ko ndax ba mu fi toogee di Serigne Touba ba fi mu ne jàppale ngeen ko taxawu ngeen ko lépp loo xam ne xam ngeen ne ak bëggama def ngeen ko ba def ko nu kawe njortam kenn ku ci ne doo dugg ci menn mbir te ñëwoo ba ci moom laaj ko ci ndigal te lam ci digal moom ngay jëfe kenn ku ci ne tam la nga ko war a sédd sa digg ak moom sedd nga ko ba matal la ko sëkk nee na kon mu ngi leen sant di leen gërëm bu baax di leen ñaanal ci barke Serigne Touba mi nga xam ne li ngeen di jëf lépp xool leen jëm waaye Sëriñ Tuubaa ngeen di jëfal yàlla na Sëriñ defal leen ci lu seen njort fay leen ci li nga xam ne daari na ku ko ci ku ko ci digal ku ko ku ku ku ku ko liggéeyal waq di xawaaija li la si daa moo fii xidmati wa hablahum maaraamu te Sëriñ Tuubaa dafa ñaanoon suñu borom ne ko anna man waasalani laa li xaradin dunyawiin dunyawiyin fa innahu yakunu min al muqarrabin képp koo xam ne ñëw nga ci man yaakaar ma te àdduna taxu laa yàlla nga ko boole ci ñi la gën a jege ànd man waa sana lii lu dunyaa faxat fa inna allaha yukrimuhu ma daama xayyan képp koo xam ne ñëw nga ci man nag ngir àdduna képp tax laa jóg yàlla na suñ borom tera giiru sa giiru sa géeru dund moo tax moo waxoon ne képp koo xam ne yaar rekk fi ñëw minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu laaxira ki nga xam ne àdduna rekk ko indi ak ki nga xam ne alaaxira rekk ko indi ba ko ko naaj laaj laajee bi da ko waxoon inna na la laaxeetuwul la adduna am na fi àllaaxeer am na fi ku fi ñëw di sàkku si àdduna yàlla suñ ba jox na ko ba mu doy sëkk te soxlawuma ko koo xam ne àllaaxiraa la fi andi la nga fi bëgg mën naa la ko dinaa la ko defal kon yàlla nañ ci daje tawfiix daje ngërëmam yàggal fi sëriñ bi mu yàgg taxawu njabootu sëriñ Tuubaa gi yàgg taxawu julli yi ndax taxawaayam bii kat la sëriñ Tuubaa bu ko def na ko mooy benn li jullit yëpp ñëpp àndandoo nekk benn kon mu yàgg fi te ànd ko wér te suñ borom may ko kattan ba nii ñu ko teewee ñu teewaat koy ati at wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu président sëriñ bi ñu ngi sant soxna si bu baax ci taxawaayam ci jàppale la